déglu leen tey ma bàkkati mbaroo may na ko laa sindanooru déglu leen tey ma bàkkati mbaroo yàlla mi fale fal na ko buuroo seexi faadilu moo aayatayoo yàlla may na ko laa rabbana ko dogal ca xadimi bil xadimi al bashir nasir la mu axiba ku ko bañ yaa di dafoo la mu mooy waxi buuru sëñ Fallu jokku naa ca xalifatu mano yeslu naa ca dallo bi ca biiru jokku naa jekk naa jekki naa dootu man di wareelu bareeru jàll nan war ca gaal ca mbuuro waaxu nan ba ca waax ba ca mbuuro irkabo gaayi nan ñaani paaso seexi faddilu gaal gaa ngi teeroo irkabo gaayi nan ñaani paaso seexi faddilu gaal gaa ngi teeroo soobu nan sappe nan jàll nanoo gaaju nan ba ca fa mbuuroo sëñ Fallou sëmbu nan sangu nan jàpp nanu sugaleef na ca duus ya fa mbuuru sant naa sant naa sedd naa xalifa maa yafal maa ka suuru jaaru naa jandi naa mandi naa daane naa faati njaay mee fa mbuuru bëmb naa bàkk naa sama mbaro làng naa maa ngi way sama géeru sëñ Fallu làggu naa wàlli yoo naa làng naa dul ma wàlli ka naa wàlli naa woote naa wiisi naa walla may kab ka waliyaan seeni kër tëgguwuloo sàjj nan làmbi yàlla di buuru siñ fàllu tawakkal naa la rabbina wasal bi seyxil kabiiru ràgg naa wopp was fi nii nang farasa fi suduuru sëriñ Fallu lambi diina ji sàjj na tayoo mbakke mbaatew bu jël ku biiru soggi leen jàggi leen joggi ngeen daane mbëri yee ca biiru sëñ Fallu àdduna ki bakkan ñoo ak bànneex ak kuréy kéema fiiru alaaji faliloo baaxul ma leen daane loon bal ma leen yaa di seyxul kabiiru sëriñ falilu sama ndaama la moo bari ndamoo ndaama dam bi bawal ak juuru alaaji faliloo ndaama laa jaraway jaara kañoo maa ko kañ bani kajoori jooro ku ko bañ maa la bañ tëj sa bañoo ku ko mere te nga wey siigi ku ko bañ boo demee ci bàmmeeru danga gis mu nakiir ak nakiiru ku ko bañ boo demee fasiraatu doo fa jàll ndi ku ko bañ naari jël xaali danoo mbal da gis nga fi yaa sufiiru maa di xaadimu ahmadana maay géwal fa këram moo di géeru bamba naa bàkk naa sama mbaroog faayilun laawa yoon man na guuru xaadimul mustafa maa ko wayoo maa ngi way sëriñ falliloog cheikh basiru sëriñ fallilu xaadimul mustafa maa ko wayoo maa ngi way sëriñ Falilook Cheikh Basiro fiilu naa faale naa faddulu naa faddalalallaahu yàlla di buuro lii neel awakaadu ko man yasa u ko soob mooy sëriñ Falilu sibtu balla ma fii rufa doomi baayu sëriñ balla jooro baayu mbeen siptu maam astawaalo bu doomi maam jaara du bàcci njuuro mbër na ca géej yëfa mbuuro bambanaan na ca géej ga nil ko sukka teg tasxini moo ko wax mandi nan kaasi buuru rembat nan fallax nan moo nu duyoo kaasi buur huute na kaasi beero baayi faatimatin maa ko fatu sama naar bi dal na te wóoro mbokk julli sëriñ Abul Baraka moom Cheikh Mamadou Fadal mi ngi nuyu Assalaamy TV ak mboolem service yi mi ngi nuyu njaatiga la sëriñ Fallou Gala Sill di kenn ci kër gi di taalibe borom Touba di waa kër maam Cheikh Anta borom dërëm ak ngërëm di waa kër njaboot sëñ Touba gépp rek moom de kenn la ci njaboot gi jàmbaar la lool sëriñ bi sant na ko gërëm na ko fii nag fii la sëriñ Abo Mbacké toog di recevoir daayira yi li tàmbalee ci 10 heures ba une ba deux heures une euh, li tàmbalee ci 10 heures ba deux heures ci bëccëg mu dallu ba 5 heures mu génn ba yàlla dogal njaboot gi lijjantiku kon mi ngi xaar ñëpp ci màggal gi nga xam ne mooy al isra wal mihraj di Kazu Rajab di guddi goo xam ne guddi lislaam la sunu borom baaxa ñu Cheikh Mouhamadou Fadal muy beneen muy ak buuñaa ci ñun ci yoonu murit ci lislaam bépp sëriñ bi di ko màggal di ko woote ni ko magam yi daan woote sëñ Modou Moustapha Fallou ak Cheikh Mouhamadou Lamine yàlla na yàlla yokk seen leer mu am pas-pasu woo jullit yëpp ci ku ko mën a teewe te waat mi ngi mi ngi ñaanal képp koo xam si teewe na fi ren sa aajo incha allah dana fajo ndax kat moom màggal gi ñor na ko ndax ndigalul baayam la Cheikh Mamadou Fadal kon ku fi ja ku fi ku fi teew ren incha allah sa ajo dana fajo mi ngi leen di sant di leen gërëm daayira yi nag eh, kilifa yi ñëpp ñëw nañ eh, teew si fi eh, sëriñ Sidi Mbacke moom Cheikh Abdoul Ahad yàlla na ko yàlla may fan gu dëgg wér ñëw na fi tey sëriñ Touba sëñ Mountakha yàlla na yàlla dolli ko tawféex ak fan wu gudd ak eh, démb rek ay ndawam ñëw nañ fi eh, sëñ Moustahine Mbacke moom sëñ Moussa Nawel moo fi ñëwoon ànd ak ñi mu àndal eh, sëñ Maam Thierno Mbacke moom Daaru Manaan sëñ Abdou sëñ Sidi Mbacke moom sëñ Abdou Lahad sëñ Maam Thierno moom Daaru Manaan mën naa ne ahlu Mbacke gépp fi ñëw sëñ Bassirou Mbacke moom sëñ sëñ Mourtala moom sëñ Touba ahlu Mbacke gépp fi ñëw kenn desut ku ñëwagul da ngaa waaye ñëpp ñëw sëñ Abolo Mohamed moom it moom sañ Mourou Mamoun moom it ñëw na fi eh, ñu eh, sëñ Abdou Mbacke moom sëñ Moussa moom moom sëñ eh, Amdi Mbacke moom it ñëw na fi ahlu Mbacke gépp fi ñëw rek waa kër sëñ maam Cheikh Ibrahima Fall yónnee nañ fi sëñ Amdi xam sañ Amdi Khady ñoom ñëpp kenn desut mbokki Baye Fallam yi nga xam ne si moom day day day faal day Mbacke di faal ñoom ñëpp jàppale nañ ko ni mu ko wootee kon yàlla na leen yàlla jàppale ci doole sëñ Touba barkab Cheikh Mouhamad Fadal daayira yi nag soppee sëñ Fallou yi moom kenn desut sëñ baa ngi leen di sant cant goo xam ne si sëñ Fallou mi tax ngeen di ko fekk si fii di ko indil seen addiya ñoom rek la moom rek la leen di moom rek la leen di booleel ndax foo mboolee fu daayira soppee sëñ Fallou nekk am nga pas-pas bu ñëw ñaa ñi am yéen ji te am man-man gi te jege ñëw nanu waa orop waa itali waa France waa Espagne waa Amérique euh, waa Asie ñëpp kenn desut mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp mi ngi ñaan ci barkab Cheikh Amadou Fara mi tax ngeen jëf-jëf ji yàlla na leen fayal boppam xéewal yi nga xam ne si sunu borom daf koo sàkk te jaami yàlla yi tax yàlla bu leen ci kenn ëppale yàlla nañu bokk ci milliardaire sëñ Touba yi mi ngi ñaanal mboolem daayira soppe sëñ Fall di ñaanal turandoo yi ci alaaji Ndiaye may gay ne ca bopp ba euh, waaye jëruñ sëñ Fallu moom sëñ Moutala moom sëñ Touba ne ca bopp ba ak sañ falu moom sañ euh, ab euh, sëñ Modou Fati Xari moom jëwriñ la joo xam ne si moom moom moom yéeme na ñëw na fi indi indi indi xéewal yu baree baree bare ñoom ñëpp teewe nañ mi ngi ñaan ci barke sëñ Touba ñu fekk ko déwén te jàmm am senegal nafi fi jàmm am nafi fi jàmm am na jàmm am ci barkab sëñ Touba asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf jëwriñ